nguur nag boo ci nekkee maanaam lu bari da lay maanaam lu bari da lay réer mun ngaa bañ a xam lu bari waaye nag boo nekkee ci biir nguur gi maanaam nekk ci à 100 di nga am loo xam ne di ko xam mooy que nguur gi nga xam ne nii moom mooy mooy mooy Benno Bokk Yaakaar mii nga xam ne nii tey Macky Sall mooy président sortant bi nga xam ne tey le deux lay pare fii ci Sénégal donc tey fam koo xam ne moom lañu ñu booleel mooy Amadou Ba Amadou nekk un grand frère dama ko waxoon nekk aussi tamit un mentor mu lu bëri man ak moom mu léeñu tey loolu dafa tax tey may alerte lii ma bëgg a alerter nag damay alerter fii maanaam béy say wewu tànk fii laa ko njëkkee fii ci Kaolack mooy non soi-disant autorité mooy soi-disant les politiciens qui sont ici à Kaolack lay waxal di wax ne li ma gis maanaam góor mooy faxas tas góor ba góor googu noonu ndërmeelu ci suuf loolu laa gis man def nañ nag seen xumbaay ak seen mumbaay semaine passée indi ay nit wan Amadou Ba ne ko carrément maanaam ñoom ñoom moom Kaolack wan Amadou Ba ne moo ñoom ñooy borom Kaolack wan Amadou Ba ne fii Kaolack ñoom kenn mënu koo gañe saa ñoom waaye nag buñ defoon maanaam buñ buñ buñ delluwaatee ci gannaaw maanaam diggante élection législative yi ak élection locale yi maanaam ñoom buñ taxawee ne Amadou Ba ñooy borom Kaolack dañuy nax Amadou Ba ci pexe lañ nekk. pexe ci lañ nekk nekkuñ ci lenn ak lu dul ci jeu politique lañ nekk gars yi bu ñu naxante ñoom seen biir ñoom ñuy ànd sax gëmante wuñ ñoom bu caaxaan jeexee. coalition lañ def coalition maanaam doggal yi man dama maanaam coalition doggal lañ maanaam lañ def bëgg lu neex Macky Sall Macky Sall wàllum wéy na te fii ku jeexal jeexal nga Macky Sall wàllum wéy na ñun kenn duñu sacrifier ñun jeunes yi xalaatuñ ko ci àdduna tey. lii nga xam ne moom la ñu wane Kaolack dama bëgg jour vote ba ñu jël nit ñi nga xam ne ni wane nañ ko ñoom ci région yi maanaam ñu dem ci urne yi foofu lay safee on a assez fait mën naa sax on a beaucoup fait man Papy Gueye j'ai beaucoup fait ici à Kaolack tey bu ma déggee nit ñi di ma wax naa ma lan moo tax campagne lan moo tax may campagne lan laa war a man la may liggéey liggéey naa ko yaa yaa trois ans ca gannaaw lépp lu ma am ñëw naa ko si doog ko waa moo xam mu néew moo xam mu bari du ma ministre du ma maanaam du duma du ma du ma dara ci réew mi lépp lu ma am ñëw naa ko séddoo ko waa Kaolack tey électorat bi man man maanaam man du ma campagne xam nga laay campagne mooy dem jëli nit ñi dimanche taal samay oto di leen jëli ñu dem di voté ji loolu moo ëpp solo ay xumbaay ak ay mumbaay man kenn du ma ci woo ndax man nekkuma ci xumbaay nekkuma ci mumbaay suñu leader yi nag nekk Kaolack lii ma leen alerté mooy lenn la mooy ngeen gëmante seen biir amoo dara amoo leen dara loolu lu dul seen biir rek yéen a gérer seen i affaire ngir jëmmi yàlla ak yonent bi bu leen nax Amadou Ba dama leen di ñaan ngir jëmmi yàlla en tant que jeune damay bañ ñun jeunes yi ñu ñu damay ñaan ci li ngeen nekk mu nekk lu concret mu nekk lu sérieux mooy ngeen génn 24 heures moo def ci élection yi maanaam jour élection yi ngeen génn nit ñi lu ay oto nit ñi dem ci urne yi lii mooy affaire bi et c'est ça la base fondamentale mii ñuy wax booy mi dañ ko gëm ci ay maanaam booy nekkul ci ay pexe Pastef nekkul ci pexe Pastef ci lu concret la nekk ndax booy yi ngay gis ni yëpp bu caaxaan jeexee ku ci nekk am nga sa carte am yoo ngay sa carte électeur yi ñu maanaam yi ñuy def seen bopp yi di leen wax naa leen carrément naa leen gars yi maanaam booy yi leen topp amuñ carte dañ leen di nax sawaay politique nekkatul ay caaxaan parce que booy yi dañoo mûr te politique booy moo koy def xale moo koy def politique mag defatu ko ndax mag ñi dañ ñoo na bañ sonn donc nag ñoo a jug taxaw ñu jéem a xool suñ candidat bu dee bu fekkee ne Amadou Ba le 24 soir mu manam mu gagné manam mu gagné élection yi premier tour. te ne ngeen yéenay borom kaolak yéen a momé kaolak leader yi fi nek né nan ngeen momé kaolak dama bëgg ngeen wax ma noo leen moomee affaire bi ku ci gëm Amadou Ba na nga ànd ak Amadou Ba ku ci gëmul Amadou Ba bul nax sa bop te nga xam te que ne kaala réew mi fi mu jëm manam ay goné képp ñokoy gérer. def nak vote sanction par secret manam man nak ma ngi alerter sama militants moy que nañ dem voter yi massivement dimanche man dina ñëw taxaw. di génne samay militant ñu dem voté yi li ma gën a naqari sama àdduna mooy calcul politique yi nga xam ne nii mooy suñu leader ñu moom moom lañ nekkee mooy benn tey chaque weeru koor doon na ñëw def social dimbale nit ñi waaye ku ci nekk jënd nga ceeb ak diwlin stocké ko maanaam pour xaal élection yi passé nee nañ mardi la ñuy joxe ceeb waa léegi ñoom calcul politique boobu pour lan